yaa ay catalan yi kookee di roquet ñëw na ba sol mooy baax saa ñu présenté ko danaa leen wax kañ lay football kañ lay entraîné ak ñoom seen indil leen lépp ci table bi ngeen liir ko mu ngi noonu ci samay kàddu ngeen liir nag salaam gars yi bëgg na ma leen nuyu ca nekk seen tur ak seen sant maa ngi leen di bëggee di leen sant ci seen taxawaay ak seen i like ak seen i commentaire su ma sañoon nag ah, da ngeen koy gën a continuer mu ngi noonu gars yi ngeen gën di góorgóorlu ci mbir moomee ah, dinañu jàppale bu baax a baax ñëw ci kookee di ah, mën naa ni Victor Roque bi nga xam ne FC Barcelone da koo jënd ba pare janvier la waroon ñëw daanaka ñëw na sax ba pare ba sol mooy FC Barcelone li des kay mooy que kookee di Victor Roque football football boobu nag mu ngi war a mën a doon kañ la war a mën a football muy le premier janvier la war a tàmbali ak FC Barcelone ngir mën a wëyal nag fa la contrat bi tàmbalee mu ngi noonee mu doon joueur boo xam ne nag liñ dugal ci contrat bi bëri na trop trop trop mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu en tout cas les Catalans Lewandowski am na client boobu loolu yàkkale fet maa ngi xaar nu muy demee nan ak naka la ba xam euh, rekoy moom la kooke di sabli teg ba xam roke dafay prouvé wala dafay a boppam ou pas lépp lu ci am ngeen lijjanti ko ah waa mais gars yi kii du laa gis fii Pikine Dakar Sénégal ah xëy na dafay am ay mbokk gars yi di leen fàttali ne gone gi moom la Aliou woon ba ñu amoon aval sax que ni dafay ñëw mu jeeg saay mbiw ñu dem ci France bu ndaw bi maa ñëw na lan naka la yi bëgg naa leen muy ko ci nekk seen tur ak seen sant ah baadu retournement de situation dafay bëgg a xeeñ Andy Diouf fii Sénégal foofee ca Pikine ah man de maa ko fi doo gis peut-être mu ngi fi daan ñëw mais maa ngi ko fi doo gis coupe d'Afrique bi jege na actuellement Andy Diouf foofee ca Lens mu nekk noonu amatul temps de jeu yi teguñu ko Ba équipe espoir France boobee taxoon mu bàyyi Sénégal te tegatuñ ko woowatuñ ko sax ba koy teg mook jara yëpp jara tamit gis naa ko bërki démb Ndiaye yàggul dara mu ñëw Sénégal bay dugal story mu ngi noonee di wax ci Ndakaaru Ndiaye ak ñoom seen ñoom ñaar ñëpp actuellement ñuy commencé ñëwaat fii Sénégal c'est pas nag xaw ma nu mu demee noonu peut-être est waat ñëw équipe nationale Sénégal choix Sénégal tegee fële France ma leen xaar ci commentaire Aliou Cissé est-ce que pare ngeen pour Aliou Cissé woo leen ou pas ngeen bindal ma ko ci commentaire man daal actuellement sama yoon nekk waxuma yéen yéenay wax bindal ma ci commentaire yi ñu waxtaanee ko ngeen xool lu leen neex tay ko ci biir mi noonee gars jàmm ci yéen képp koo xam ne abonné goo sama chaîne YouTube abonné ngay liké di commenté di partagé loolu nga ñu mën a soutenir bu baax a baax beneen yoon ci yeneen vidéo merci à bi nice na t'es positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien. merci à toi ñoo far kontaan na. avec mon bro. walaay ndeysaan. saa yi gerte la quoi ñoo far. avec mon grand Diouf. mais bëgg nañ ci waaw. mais Bamada. walaay lan nga wax. walaay ndeysaan. <laughs> walaay ndeysaan kese. donc continue comme ça. inchaallah merci. yàlla baax na bii laa soxla ah. ci loolu. après daal la nga koy bu bëgg kuy tara rek drapeau Sénégal mu bëgg koy tubaab ñu la tere rek nga drapeau Sénégal. Sénégal. يا مؤمنا استوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على yàlla na yàlla def ay Sinoa. ngeen mokkal alxuraan ngeen mokkal alxuraan ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay dañ kontaan vraiment. loolu la leen bu baax a baax. si yaa tur macha allah. yàlla na yàlla def ay Sinoa. def leen ay jàng alquran